yonent yépp yàlla xarbaax la leen jox xarbaax mooy wax nit mu weddi la nga def ci kanamam la mu miinoon nekkatul loola loolu mooy xarbaax baax mooy bu jant fenke yaa ci bëccëg ba muy sob bu sooyee yaa ngi ci guddi ba ba muy fenkat loolu mooy baax yàlla nag dina yónni yonent ci yow nga weddi ko mu xaral ko baax ga naka la koy xare bëccëg bi nga ne mu def ko muy guddi mooy xar baax jox na ko yonent yi mais joxu ko yonent bi parce que amulu ko njëriñ yónniwu ko pour mu xar baax daf ko yónni pour mu yéwénal baax Moustapha amiin amiin waaw moo lu mat a xàmmele ndax xar baax yéegi na waaye yéwénal baax a ko doole nakar bak baax benn coono nekk ci du liggéey yëfi jambour la yëfi jambour la xamuloni yéwénal bax moy liggéey wa waaye xar bak yëfu jambour la innal karamati xaydun cheikh al alxaj malik inna alkaramati xaydun للرجال فلا تضف إلى النفس إن الوصف لله xar baax coono nekku ci kenn du ci gërëm kenn fexe ba bëccëg bi di guddi coono nekku ci namm namu yàlla la waaye fexe ba bi ñi nga yilif ci bëccëg bi kenn du ci def lu bon kooku mooy yéwénal baax hmm? moo tax yàlla daan na ci déeyoog yonent bi daan na ci déeyoog moom yoroog bi ko ko yonent bi waxee wax na ko ko ñu ko man daal dama gis ñëlee ma ëpp ay xar baax mu ni ko kenn wax joxula xar baax yéwénal baax lañu sakku ci yow ndax xam naa li xew wa ma manaana an nursila bil ayat illa an kadaba biha al awalu soxlawuloo ko ni ko nit a mel noonu lu mu sonnewul du ko jariñoo waaw lu mu sonnewul du ko jariñoo moo tax yàlla daan na xar baax ba noppi ki weddi weddi daan na xar baax ba noppi te du tee ki weddi weddi parce que effort nekku ci jékki-jékki nit ñi nekk ci bëccëg ba mujj mu indi lëndëm ban njëriñ la xar baax rek moo tax Cheikh El Hadj nee na fayda nekku ci nee na yàlla jàdd jàdd leen la yoon wa gën a jafe indil la bi gën a yomb nee na fayda nekku ci nee na bàyyi jàmbur ak mayam mayu yàlla la bàyyi koog yàlla te def yëfi nit waaw ba tax na moom mi fekk démb moo dimbale yonent bi moom yàlla fekke na démb yonent yi la daan xulóog ñoom yëpp dégg na ko enregistré na ko teg na ko yonent bi déglu ko ah bi ñu naan yonent bi ah yow de defoo fii lii te defoon na ko defoo fii lii te Ibrahim defoon na ko defoo fii lii te defoon na ko limam fii te Aïssa defoon na ko mu ni ko laaj leen lu taxoon ñuy wutaray ñu ko defoon ki def lii ba nëpp ngay wut pour rey ko kay jaratul ñu di la ko defal ah fa lima qataltumu in kuntum sadiqin